jërëjëf asalaamaaleykum euh, mbokk téléspectateur u Leral TV mbégte ak contentement euh, dellu siwaat euh, fii ci seen émission focus ñu di ko amal àjjuma bu jot ci waxtu wi di sant yàlla mi ñu may tawfiix ba ñu teewaat fii ñu di ko sant dolli lépp loo xamante ni santoon nañ ko ko moom suñu borom di bàyyi xel ñi nga xam ni actuellement ñi ngi ci hôpitaux yi ak seeni tawat yàlla saafara leen waaye ñi nga xam ne ñoo génn àdduna suñu borom jégal leen waaye rawatina mbokk yi nga xam ni jamono ji ñu ngi ci lien de détention yi nekk ci kaso itam suñu borom teggil leen natt yooyu ñu nekk waaye delluwaat leen ci li nga xam ne moom mooy uh, seen i njaboot uh, ku ne xam ne ni rek uh, focus saa su nekk dafay intéressé wu ci lépp loo xam ni daf leen soxal ñeel askan wi waaye rawatina téléspectateur u Leral TV yi baaxoo Euh, fidèle à, à, programme programmes, euh, particulièrement à cette euh, émission, émission de grande envergure, émission des connaisseurs, <laughs> comme ñi nga xam ni <laughs> sama waa team dinaa leen dugal léegi waaye tey nag dañu ci àndaat ak ki nga xam ne rek moom mooy la la grande diva Amina borom anglais yu neex yi waane lool macha allah mu ngi noonu rek moom daal kenn xamul noo koy def. waaye tamit euh, dinañ fi dalal euh, sunu gan gu am am solo dinañ ñëw léegi ci euh, dugal ko ci présentation bi soxna Amina Amina tey moom da xam nga sénégalais moom boo ko ne ah tey sañse nga rek mu mer waaye nag duma la wax tey sañse nga dama naan Amina sañseeti nga. waaw dama tijji armoire bi rek mu wadd sama kaw yére tilim yi noonu rek. <laughs> kon wu tilim nga defee émission nii. billaay yow damaa tijji rek. mu wàddi waaw moo tax ma ciy gis noir yi ak rouge yi. waaw gis nga de. waaw yooyu ci xeetu tilim yi la bokk. <laughs> nuyu nañu la am mbégte ñu dellu si waat fii ci émission Focus. Euh, fay naa la oustaz euh, di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àdduna wërngal këpp mhm. di leen euh, baalu àq di leen bal di ñaan yàlla mboole ñu jégal ci àjjuma bi mhm. di nuyu képp kuy téléspectateur u Leral TV mhm. di tamit téléspectateur émission Focus na mu ngeen ñu waaye ñoo leen raw man moom faaw ngeen wax ci man parce que dem ah. ñëw bi moom <laughs> il faut que ñu uti benn solution. <laughs> da ngay def kii école buissonnière ngay def. ah léeg ma daw de duñ ma téye tamit. ah dana war de. ah faaw ñu faaw ñu uti solution de. coach sax gisoo léegi dama ko waal day jékki-jékki moom daal di seen i jiwu xaw jékki dugg dugg ci tunnel yi. <laughs> waaye moom ñu ngi koy xaar ndax xam naa ni dafa fekk ni fi mu toll nii. <laughs> te nga bañ a wax baax na. sama tuuma nee na coach yóbbante la. dalal dalal gan gi te nga bàyyi coach. nee na ndax sa lune de miel du jeex. loolu nag sama tooma moo ko wax depuis la réalisation. man de waxuma ko depuis la régie daal ñoom. Hmm. nee nañ daal lune de miel gi daal xam naa ne. Eh, dana daal moom daal mu ngi noonu <laughs> professeur. <laughs> nuyu nañu la ziar la am mbégte euh, dalal la fii nga xam ni sa kër la kër Gombine la. Mm-hmm. Euh, muy leeral TV. nga dañ fi amal euh, émission yu am am solo. dellu ci li nga xam ne mooy wàllu économie di sa domaine. Mm-hmm. ñu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateur bi. Euh, Dawda ñoo ngi leen di nuyu di nuyu aussi soxna si. Mhm. Euh, sànq rek maa ngi koy tooñ di ko naan euh, yow yaay borom vidéo bi viral bi. <laughs> ni mu defoon si sëñ Moustapha Sy. Eh, ça c' est important aussi. di leen sant di leen gërëm aussi invité comme ni nga ko waxee fii suñu kër la aussi. parce que ah. nekkoon nañ fi. Mhm. en tant que chroniqueur. Mhm. doon fi am animé aussi émission boo xamante ni sa parlait d' économie à la rajo. toujours dañuy kontaan di ñëwaat di waxtaan ak yéen ci wàllu économie. yaakaar ni yàlla da ñu suturaal ba ñu mën a génne le meilleur de nous-mêmes au bénéfice des Sénégalais incha allah. incha allah waaw waaye tamit euh, sañse gi ma doon wax ci Amina professeur tamit moom kenn demul mu des. <laughs> Ah, macha allah <laughs> xam naa ni moom fi toll nii moom. Uh-huh. macha allah macha allah plateau bi daal dafa ala dawme. ah da ngaa fàtte sa bopp de. kan man tey ku la ñëwal. waaw lii expérience couture. ah lii moom war nañoo mm-hmm. yàq tamit de. lii daal moo may jàpp rek. ah lii de moom macha <laughs> allah. lii expérience couture daal. Ah. xale boobu daal moo may def nii saa su nekk. macha allah waaw di dagg chemise yi ba mu baax. dagg na ma waaw sañset. ne ko da nga fay am ay kii ay jigéen. waaw ak ay càmmañ. waaw <laughs> dañu gës. loolu da ciy baax. waaw da ciy baax li expérience yaa ko dégg lii expérience couture. waa Team Focus nee nañ nag euh, nga defal leen boo xam te ñoom ñëpp dañ koy solandoo. lu expérience. ko waaw waaw aywa macha allah. ok kon bu delloo ci euh, waxtaan wi tey mbokk yi euh, ñu ngi fas yéene ànd ak yéen suñu première rubrique fu réew mi toll. Mm. dinañ leen jox information yi nga xamante ni moom mooy information faax de la de la semaine de mu nga xamante ni actualité bi yëpp ci loolu la ñuy wax. Mm. waaye suñu deuxième point aussi on va parler. de l'éducation la situation euh, scolaire euh, du pays gis mhm. nañu ne actuellement professeur euh, dina ci mën a àddu en tant que professeur nekk jàngalekat aussi mhm. euh, dellu ci situation wu <clears throat> université yi waaye njàng mi en général mhm. euh, ñu ñëw nag suñu thème du jour dellu ci la vie chère au Sénégal le pouvoir d'achat de ménage au Sénégal donc euh, en question donc loolu tamit euh, dinañ ci ñëw waxtaan ci ak euh, sunu chroniqueur. Uh-huh. nga xam ni mm-hmm. domaine am la. loolu mm-hmm. tamit dinañ ci ñëw. kon bu delloo fi mi toll gis nañu ni premier point bi nga xam ni moom mooy point CA bi ñu gën a débatre dans la semaine. Uh-huh. mooy rawatina ci démb ak tey. Uh-huh. muy la situation médicale du président Pastef Ousmane Sonko. Mm-hmm. de plus en plus inquiétante. ndax gis nañu ni euh, yóbbu woon nañ ko fa li nga xam ne mooy pavillon spécial euh, ci wàllu traitement am ak ci euh, wax nañ sax on a parlé de réanimation uh-huh. donc sa sa situation médical donc inquiétante uh dégradante uh-huh. parce que gis nañu ni wax yañ ci wax yëpp wax dëgg yàlla vraiment Sénégal am na loo xamante ni actuellement fi ñu toll au-delà de la politique au la des différences mhm. euh, au-delà de des ni ñuy tuddee euh, ni ñuy tuddee maanaam clivage yi nga xamante ni moo am nañu xam ne nous sommes sénégalais. Mhm. et nous sommes des humains. nous sommes des mhm. humains. et l'aspect humain prime surtout. parce que yàlla moom moo wax ci alquran laqad karam naa bani aadam. laqad karam naa bani aadam bu ko yàlla di wax. dafay mettre en valeur la dignité humaine. quel qu'en soit. c'est-à-dire la posture de l'homme mhm. son statut mhm. social mhm. socio-économique religieuse lu mu mën a doon war nañu mën a dawal li nga xam ne moom mooy l'aspect humain nous ne sommes pas des ennemis nous Sénégalais et nous ne serons jamais des ennemis parce que ni ñu yàlla bindee ci Sénégal ni nu mel ci ni ñuy dundee am nañ cousinage à plaisanterie yi am nañu diggante séeréer alpulaar dafa am yoo xam te ni xajul ci suñu réew mi politique bi dafay passé ça passe. Mm-hmm. mais tey bu politique bi jàllee am na yeneen loo xamante ni moo nekk suñu dund. Mm-hmm. kon encore une fois li nga xamante ni moom la actuellement président Ousmane Sonko président Pastef li nga xam ne moom la nekk di dund actuellement bu fekkee ne sa situation médical sanitaire permettre ko actuellement mu nekk foofu am na yeneen possibilité liberté provisoire mu dellu ci li nga xamante ni moom mooy ci njabootam. Mm-hmm. parce que tey jii nii amul dara lu fi xew loo xamante ni war nañu mën a empêcher ñu toog autour d'une mhm. parce que aussi mhm. il faut noter que la dat la direction de l'administration pénitentiaire a aussi saisi le mhm. procureur en disant que il a une fièvre de degrés et que il a des vomissements incessants te loolu je pense que ni bu fa nit xasee ba toll y en a même avocat mu ngi wax que mu ngi am benn tànk biir bàmmeel benn tànk ci biti te bu dul dara bu ñu jëlee kujje politique bëgg lépp ñu tegee ko de côté Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui est de la population. Mm-hmm. parce que ak lu mun munti xew euh, bëgg Sénégal. Mm-hmm. ak am cofeel ci sénégalais yi ak yéene améliorer la qualité de vie des sénégalais moo ko yóbbee lu bëri. Mm-hmm. kon je pense que tey dafa jaadu sénégalais yi. daal di jël loolu def ko seen seen seen soxla bopp daal. maanaam nañu jël nguur rek kujje politique ak lépp tegee ko de côté. te xam ne diggante nit ak nit je pense que. loolu c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on en compte. Mhm. waaw xam nga l'actualité politique moom man mhm. du ma siy faral parfois <laughs> di si wax à cent pour cent. Mhm. mais quand même nous tous des Sénégalais. et que gis nañu lii ci xew yëpp nous sommes interpellés quand même. muy côté université bi muy fu mu munti doon rek quand tu es Sénégalais. je pense que lu am si réew rek tu es interpellé war nga si mën a joxe sa sa xalaat. Euh, mais boo gisee le président Ousmane Sonko li ko dal fii yëpp wax na ko. ko bëgg réewam la uh-huh. te bu demee ba bëgg sa réew nan laa julal lor paradoxe lay jur parce que bëgg réew dañ naa war a encourager davantage uh-huh. parce que dëkk boo gis dafa soxla am ay opposant dëkk boo gis mu nguur gi dafa soxla am ñoo xamante mooy force alternative yoo xamante ni ok c'est ça mooy tax ñoom ñu gën a mën a góorgóorlu uh-huh. xam ne bu ñu deful leneen war rek kii dina jël réew mi seen côté mais bu demee ba woo nii sama bëgg réew dina ma jural ëllëg ay jafe-jafe mooy indi parfois compromission yi ngay dégg si diggante ay camp bi dem nañ rejoindre camp bi uh-huh. dem ba intérêt général bi nëbbatu ay intérêt partisan di prendre le dessus. Euh, li nga wax sànq dawlu je pense que lu jar a bàyyi xel la. Mhm. que ni Sénégal dafa benn lu ñu manqué. Mhm. Mhm. mooy euh, li fonde woon suñu essence ñun ñëpp au ah Sénégal. mooy les valeurs humaine tout à dañoo dem ba dafa disparaître léegi. Ah yërmande dafa disparaître la cohésion sociale dafa dem ba disparaître. dañuy dem ba léegi ci mosquée yi ci alméer yi on privilège beaucoup l' aspect digital. que l' aspect humain. mooy dem ba ñi nga ay réitérer seen ay dignité mhm. yooyu yëpp nag bu dajee si réew dañoo war a dajawaat pour reconstruire maintenant la nation si yàlla ñu ko mën a reconstruire fexe ba nit ñi jotaat seen dignité mhm. ñu fexe ba euh, lu ñu tuddee lay sensibilité ñëwaat ci nit ñi bien vrai que avec cette mondialisation avec l'ère du numérique yooyu yëpp dafa disparaître mhm. mais sur des questions politiques dañ ci sentir carrément parce que politique bu ñu ko waxee yaa ñu trois pouvoirs y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. ñun ba ñuy xale dañoo jàngal que ni y' a séparation de pouvoir. mais nga màgg gis ni y' a pas séparation de pouvoir. que ni exécutif bi. Mm-hmm. piétine législatif bi. Mm-hmm. piétine encore le judiciaire. Mm-hmm. donc moo tax boo nekkee justiciable pour nga mën a défendre sa bopp lu jafe-jafe lay doon. c'est pas évident tey président Ousmane Sonko ndax moo def wala defu c'est pendant devant la justice. Mm. mais dañuy gis ni euh, ces droits ces droits humains. sont piétinés sont bafoués. dem nañ ba secret médical bi danañ koy divulguer maintenant. ci koo xamante ni yaa ko téye mënulatul boppam ni mënuloon boppam. gis nañ daal il est temps. soit ñu téye ko avec un jugement clair et net. Ah. mais nañ ko bàyyi aussi soit fekkee defu dara mu delluwaat ci këram ba mën a participer à ces élections présidentielles. effectivement waaw parce que loolu rek mooy li ñuy ñaan mooy pour stabilité réew am parce que tey jii nii mooy li may wax politique yi. Mm-hmm. lu ne mën nañ ko entre eux uh-huh. mën nañoo saagante léegi bu subaa ñu àndaat uh-huh. mais dafa am loo xamante ni il faut que les politiques nous aident à reconstruire notre nation évidemment à euh, aussi nos relations sociales tout yi nga xam ni tey moo c'est ça qui faisait tey jii nii euh, la belle image du Sénégal loolu nañ ko delloo siwaat xam ni dafa am ay xale yu leen di suivre uh-huh. xale yi tey xoolal ay élèves yu ndaw ay xale yoo xamante ni ci kër yi uh-huh. léegi euh, tension sociale bi uh-huh. dañ ci waxul mais bi nga xamante ni ñu ngi koy wax tekki tekkaaral bi dëkk bi nekk yi nit ñi dañu fees uh-huh. mm-hmm. nit ñi dañu fees del xajootuñ ci kër yi famille yi yàqu na ndax politique léegi da ngay gis ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi kii far bi kii kër bi ñuy saagante di reyante ba dootuñ sax toogandoo ci benn benn ndab mm, nga dem ci mosquée yi dans les mosquées ñii ñoo far ci parti au pouvoir ñi ñooy opposants yi politique boobu dem ba dugg dans les mosquées. Ah. dafa dem ba dafa influencé sax léegi xutba yi. xutba yi léegi xutba yi <laughs> dafa am jàkk yoo xamante ne ñi penché wu tey jii ci pouvoir bi. Mhm. toujours dañuy wax loo xamante ni euh, c'est en faveur euh, de l'État. ñi nga xamante ni tey jii nii ñoo nekk de l'autre côté bu ñuy wax dañuy penché wu jëm ci li nga xamante ni moom moo neex opposition bi. Mhm. léegi nag foofu noonu li nga xam ne moom moo fa jaadu. mooy nañu delloo si waat xel yi. Mm. xam ne lu mën a xew rek. Mm. ñun Sénégal gii lañu am amuñu leneen lu ëpp Sénégal. encore une fois ñi ngi euh, compatir mm-hmm. jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, situation médicale de Ousmane Sonko bi mm-hmm. euh, nga xamante ni actuellement ñi ngi koy ñaanal jàmm mu jug ci li nga xamante ni ci mm-hmm. yàlla teggil ko nattu yi voilà il ne mérite pas ce traitement inhumain franchement ak lu ñu mën a wax il a servi dans hmm. l' administration sénégalaise. Hmm. nekk ci impôt et domaine liggéey fa 15 ans. Hmm. c' est pour cela que je souvent donc ma ne pendant ces 15 ans là. Ousmane fi mu jaar jaar ENA jaar fépp. liggéey ci administration. lu mu fa jaar yëpp donc kon 15 ans yooyu yëpp Ousmane Sonko ku bon la woon. ah c'est day na war <laughs> na fi ñëw ci 3 ans son Sonko nekk fi koo xamante ni. Euh, on lui a traité de tous les noms. c'est c'est très tey jii nii pour faire euh, mm-hmm. tey jii le procès de qui que soit. Mm-hmm. mais dafa am loo xamante ni bu demee ba am dafay jur ay frustration mm-hmm. ci réew. réew nag li nga xamante ni moo koy doxal. moom mooy doxal li nga xamante ni moom mooy justice et équité donc loolu tamit euh, mooy message bi nga xamante ni ñu ngi ko doon ñu ngi koy wax ci rapport ak situation bi nga xamante ni la ñu toll nii Mm. bu delloo ci deuxième point bi aussi gis nañu ni ci wàllu euh, immigration clandestine. Mm-hmm. am na benn gaal goo xamante ni euh, gaal ga daanaka dafa suux. dafa toj ba teer Uh-huh. Euh, au niveau de de de Saint-Louis dañ doon dem Espagne gaal ga uh-huh. yeggut uh-huh. waaye ñu bëree bëri ñàkk ci seen bakken donc loolu tamit information la fu réew mi toll ba tey jii nii xam naa loolu bu ñu jugee ci thème bi professeur dina ci ñëw wax phénomène boobu lan moo ko indi par rapport ak euh, li ñuy war a waxtaanee vu cher au Sénégal est-ce que ça s'explique euh, beneen bi mooy déclaration du khalife général des mourides Serigne Mountakha moom tamit interpellé na ñi nga xamante ni moom mooy euh, les politiques. Mm-hmm. ne leen euh, fii ba ñu jëm ci élection yeeg fi ñu jëm. Ah. yëngu-yëngu dëkk beeg yëpp. Mm-hmm. moom euh, soxlawul pour di leen recevoir ñuy mm-hmm. jaabante parce que am na ci beneen liggéey. Ah. bu mu nekk ci li muy liggéeyal boroomam ak ci li nga xam ne mooy ndono maamam. Ah. kon nag politiciens yi yéen yéen ko dégg noonu noonu. waaw sëñ Mountakha daal nee na. <laughs> ree ju neex ji. <laughs> sama maam jooju nga xamante ni waaw il m'a mhm. euh, ci li nga xamante ni mooy ci màggal gi mhm. Mhm. wax dëgg yàlla mbégte daal mbégte daal lañ ci am te te aussi euh, il faut préciser que dafa waxoon nañ délocaliser élection yi parce que bëggul woon sax euh, urne ay urne de vote am biir Touba mais bi mu demee ba ci biir waxtaan dañ ko xamal que ni bu ñu waree délocaliser mhm. à quatre mois cinq mhm. mois des élections ça va être impossible mhm. parce que sénégalais yi déjà seen pièce d'identité yi seen carte électeur yi am na ci seen bureau de vote yi bu ñu ko waree délocaliser délocaliser day métti donc du coup il est revenu sur ça mu ne bëggul lor sénégalais yi bëggul leen xañ seen àq ak yelleef may na leen ñu instaurer les bureaux de vote biir Touba bu ñu voté ba noppi nañu procéder à la délocalisation définitive mm-hmm. Mm-hmm. de tout ce qui concerne la politique mm-hmm. à Touba parce que coow leeg demal leeg dikkale bi talu ko te il a parfaitement raison dañ ko koy nangul kilifa la li mu nekk ci liggéeyu sëriñ bi moo ëpp solo téeméeri junni yoon que kii ñëw wax pare kii ñëw dëkk ko noppam et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à saluer Évidemment. donc voilà c'est la petite précision juste qu'on voulait apporter là-dessus professeur noo yaakaar naa li xalif bi wax euh, li ñuy wax mooy dégg ak topp rek. Mhm. parce que politique ak euh, religieux yi. ñoo war a ànd. Mhm. bu demee nag ba religieux mënut ñu ànd ak politique yi politique yi wala ñu xoolaat seen bopp. parce que euh, politique boo koy def foog nga am une orientation religieuse. Mhm. parce que loolu mooy. loolu mooy équilibré est-ce foofu tey sëriñ sëriñ si yëpp. taxawee taxawaayu sëñ Mountakha. mais euh, parce que conditions yi tamit euh, dañuy ñëw fekk sëriñ bi parce que sëriñ bi ñëpp nga bëgg koo diviser diviser ko taalibe def ko fukki pàcc. c'est en fait ñoom lu ñu dul comprendre mooy euh, sëriñ bi nekkul juste benn homme de Dieu bu taxaw noonu rek parce que li mu nekkee strat ñoom lu ñu nekkee ay stratège sëriñ bi noonu nekk nekkee stratège. lu ñu mënti am ci ay information moom am na information yu ko ëpp. donc du coup mooy war a tax ñoom dinañ xam. ñii di ñëw pour seen bopp ak ñii di ñëw pour faire de la politique amu ñoo xam dañuy mbubboowu dem ziyaara ji alors que lu ñu soxla rek mooy am ay image mhm. sukk ci kanamu sëñ bi ñu photo ko ak moom ñu ñu divulguer image yi et cetera c'est mhm. mhm. donc du comme Touba nag ñoom am na benn politique boo xam bëgg nañ ko fa mooy jaamu yàlla boo xam ne c'est assez approfondi mm-hmm. donc je pense que c'est assez légal et assez euh, légitime mm-hmm. ñu interdire toute activité politique mm-hmm. euh, parce que politique quand même yonent bi la alayhi wa def na la politique mais politique bu saine politique boo xamante ni du yàq nit politique boo xamante ni yàqu dara ci réew mais bu ñu demee ba politique di jur ay yàqante der wala saagante mais vaut ñu délocaliser ko carrément je pense que le ministère de l'intérieur avec ses différentes directions nañu vraiment prendre en compte ces ba élection yi bu jàllee. ñu jéem a xool nan mën a assainir ce milieu là incha allah. tout à fait d' accord assainir euh, mhm. chaque euh, daanaka di ma leen koy fàttali di leen ko fàttali bari na. Mhm. valorisons l'éthique avant mhm. la politique pour la république. wallaay waaw loolu daal mooy li nga xam ne moo fi nekk. ayca kon euh, bu delloo ci euh, beneen point bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee on va parler de l'éducation. Euh, professeur yow en tant que jàngalekat euh, fi nga xamante ni moom mooy euh, système éducatif bi ak sooxe-sooxe yi nga xam ne jamono ji yi ngi jànkonte ak moom ci ouverture des classes waaye gis nañu ni actuellement am na ci zone yoo xamante ni mënaguñ jàng ndax inondation yi def fa jaar mhm. am na école des des écoles inondées gis nañ abri provisoire yi mhm. gis nañ aussi tamit jafe-jafe yi am sur euh, l'ouverture des universités mhm. mais euh, particulièrement l'université Cheikh Anta Diop UCAD euh, yan jàngat nga ci am ci situation euh, scolaire du Sénégal bon la situation est assez critique pour dire vrai parce que lu toll ni éducation parce que dëkk yee ko yor éducation santé ak justice mhm. te booy xool Sénégal ñett yooyu yëpp dañoo feebar mhm. éducation bi dafa feebar santé bi moom waxuma la feebar rek mais dafa dee carrément. Mm-hmm. la justice n'en parlons pas. Mm-hmm. bu demee na ba dëkk ñi ko war a taagu dem nañ ba am un problème dëkk ba mënutul dox. Mm-hmm. bu delloo si côté éducation manque de volonté politique laa ko jàppee de nos dirigeants parce que année ba année. les mêmes problèmes ñoo répété wu. tout à inondation bi dafay jaar chaque année. abri provisoire n'en parlons même pas chaque année day am. alors que ñoom seen confort musta wàññeeku. loolu paradoxe la parce que dëkk booy dem <laughs> yaa ce qu'on appelle ay orientation budgétaire mhm. da ngay dem assemblée ñu nattal la sa budget nga ne lii laa ci war a def mhm. mais ñoom ñëpp koo ci gis yaa ngi sa bureau bu climatisé mhm. descendre sur le terrain xalaatuñ ko ouverture bu amee même la ministre Dakar lay yem oto buy jaar soixante-dix millions à cent millions euh, visiter deux à trois écoles jeex na ko n'est-ce pas accompagné avec certaines presse boo xam ñoo ñuy gunge si écoles yoo xamante ne amuñu problème amuñu dara mhm. trois mois lañ jël de vacances mhm. war see mën a defar classe yi mhm. war see mën a defar laat écoles yi mën a régler le problème des abris provisoires mais duñu ko def parce que seen bien-être moo leen gën a junni yoon l'enseignement beneen bi mooy si côté enseignant yi parce que bu njëkk ba enseignement plaisir la woon vocation la woon nga tàmm ko pour def ko. Mhm. mais léegi li am mooy daw dépense. tout à ñu ci dugg yëpp dañuy daw dépense. yi fiche duñ ko préparer correctement. Mhm. xam-xam bi nekku fa. parce que mhm. duñu def recherche pour dire vrai. beneen bi mooy jikko bi nekku fa. parce que ñun suñu enseignants yi dañu doon ay modèle si ñun. ba dañ leen di bëgg a roy c'est ça parce que boo xoolee xale bi durant des années ba tey sa enseignant mu sa bopp. nu mu tudd nu mu meloon nu mu doon solo. Mhm. jusqu'à présent tu parviens à rappeler de lui. parce que bu njëkk ba enseignement da nga ko doon def parce que plaisir la woon te da kaa tànnoon pour devenir enseignant. mais léegi y a des du système. Mhm. amatuñu benn avenir dans le système ñu ne nañu rabattre vers l'enseignement. Mhm. bu ñu ñëwee foofu nag sont des capitalistes. li leen intéressé mooy seen bonheur seen plaisir u bopp réellement mhm. au détriment de li nga xamante ni xale bi war na ko mën a am comme connaissance et cetera mhm. parlons de l'université mhm. université tey jii politique yàq na ko parce que li fi am ba ñu def ay casse booy xoolee benn homme politique lañ ne dañ koy jàpp mu déclancer les émeutes donc paradoxe la parce que bu demee ba temple du savoir une décision judiciaire ou bien politique créer fa boobu c'est parce que politique dina bu prendre le dessus sur l'éducation parce que beneen bi aussi mooy les étudiants ces revendications yëpp sont révendication revendications sociales amul benn revendication pédagogique man je pense que jàng ñi jaar daara xam nañ ci dara jàng foo nga tarbiyo ko mm. foog nga sonn mm-hmm. on n'est pas là pour am benn commodité pour mën a jàng lu ñuy soxla mooy le minimum ou bien li strict lu mënta ñàkk. Mhm. université ñu ñëpp jaar nañ fa. Mhm. Eh, xam nañu boo demee centrale ceeb bi nii lay mel boo demee 11h ceeb bi foofu la gën a neexee à partir de 11h di mën a am mburu di mën a am ceeb. ak rang bi donc foog nga teel a dem pour mën a am ñam bu baax boo fa yéexee dem. Mhm. ceeb bu demee noonu. am na yenn lekk yoo xam benn kudd ngay tibb tax jug daw dem en fi. donc su fekkee nag loolu moo defoon charme université a a nekk à l'aise préféré ah. man j'aurais préféré ñu def des orientations vers les pédagogies pour ne année yi ni ñuy dugalantee neexuñ ñun parce que suñu avenir la mm-hmm. parce que bu ñu xasee ba def master ans on a perdu une année de carrière mm-hmm. et une année de salaire tout à fait mm-hmm. comment rattraper cela on discute sur des idées licence euh, c'est ça quoi on discute sur les des syllabus université bu njëkk ba leen naan wax boo fa génnee foog nga defar formation mais aujourd'hui war nañ ko mën a gën a améliorer mhm. ba formation bu ñu def université bu ñu fa génnee ñu mën a directement opérationnel c'est possible de le faire mhm. parce que ce sont des options yoo xam ne mu nga ko choisir il y a de nouvelles métiers qui sont là il y a de nouvelles formations qui sont là man j'aurais préféré que étudiants yi axé seen revendication sur ces éléments mhm. foofu la ñu gën kii ñu bañ a parce que aujourd'hui am na ñoo xam ne dañuy jaawale tax université bi ak kudd parce que pour ñoom kudd mooy université parce que pour dire l'aspect social nous prendrait le dessus sur l'aspect universitaire. oui c'est euh, on n'en parle pas gisoo amicale di organiser ay panel d'échange. Mm-hmm. doo ko dégg que tamit mooy. Euh, parce que mooy soubassement politique. oui bi et je pense que politique bien vrai que. aujourd'hui toujours ñu fay teg ñëpp c'est des politiques. évidemment <laughs> mais tey jii quoi qu'on puisse dire étudiant ak politique dafa yàgg si histoire. Mm-hmm. mais nag doon nañu ko sopp trop trop trop ba nga xamante xamante ni même bu ñu dee def politique. Mm-hmm. ñu def politique bu seen à l'université mm-hmm. Mm-hmm. mais ñu xam ne l'université c'est le temple du savoir. et ça c'est important aussi. boroom xam-xam université lay génnee. universitaire ñoom ñooy xalaat réew naka lañ koy doxalee bu ñu demee nag ba amatuñ ay universitaire là je pense que ni y a franchement quelque part où le bas blesse hein. oui évidemment. voilà euh, professeur. Mm. dégg li tax sax bëgguma la dagg mooy ni da ngay wax loo xamante ni. c'est son domaine voilà c'est son domaine. euh, vous êtes à l'aise euh, ci domaine boobu. Mhm. Amina professeur wax na ci li nga xamante ni moom mooy situation bi nekk ci dans les universités. Mhm. wax na ci euh, orientation yu ama am solo. Mhm. Euh, étudiants yi ñu gën di bàyyiwaat xel revendication pédagogique yi. donc revendication sociale yi. aussi tamit buñ ci amee amélioration dina am impact bu positif aussi ci seeni étude parce que tamit dañuy wax ne saaku bu mhm. deful du taxaw bu yabul lu taxaw. tout à fait donc yow bu dama lay bàyyi rek nga ñëw ci. ñëw ci tout tànk yi euh, voilà man foofu laa doon tàmbalee sa mhm. parce que euh, njàngale bi dafay tàmbalee si tuuti fi jëm ci kaw jëm ci njàngale bu kaw bi la déjà parlé mhm. d'université foofu moom fa xam-xam mhm. foofu parce <laughs> que ah, xam nga moom ay étudiant man ba ma bàyyee jàng yàgg xam nga moom ay étudiant lay formé voilà ma xam ah, moo tax wàccul ci ci ci ñun suñu niveau waa préscolaire voilà moo tax ñun na bàyyi ba lycée bàyyi ko bu def la relais. ma ne suñu papa Iran Ndao ñoo wax naan waxuma ak ñi jàng de. <laughs> waaw ñun ñun ñi tàmbalee jàng la ñuy wax. waa CI laay waxal ndax dari. donc c'est ça en fait. Euh, <laughs> le souci aujourd'hui et je pense que ça corrobore avec le thème qu'on va mm-hmm. aborder. Mm-hmm. les difficultés que les enfants ont. man foofu lay tàmbaliwee di yéeg. Mm-hmm. Euh, c'est des difficultés à la base primaire. c'est-à-dire que ni. le problème moi je pense que mm -hmm. il ne vient pas des enfants okay. quand on parle des enfants parce que bu ñu wax mhm. université mm -hmm. la responsabilité est partagée mm -hmm. on parle des étudiants et on parle de de, de du corps professoral mhm. mais là moi je vais viser directement les enseignants mhm. parce que dama gis léegi du ñëpp il y en a beaucoup qui sont diplômés qui sont bien euh, éduqués qui font beaucoup de recherches qui sont vraiment très informés sur ce qu'ils font seen métier daf leen passionné toujours. Mhm. et en passant si li nga wax noonu man mhm. je salue un vibrant hommage à sama prof anglais bu ma yore woon mhm. collège Mrs Ndiaye. mooy sama ñaareelu yaay. su ma amee sax problème sama kër moom laay wootee. loolu ci li nga wax sànq la. mooy njàngale bu njëkk ba. Euh, enseignants yi dañu nekkoon suñu deuxième parent. mais aujourd'hui dañu gis benn détachement c'est-à-dire que ni am na yenn ci enseignants yi. dañu jël mbir mi def ko juste un amatul cette passion qu'il y avait avant parce que tamit nañ ko waxte dee ils ne sont plus motivés da ngay gis un enseignant bu liggéey at ba at la ñu koy fay la ci yàlla xam doy na bu demee euh, surveiller mhm. euh, euh, examen wala mu dem daal di corriger dina toog ba vacances yi jeex ba année scolaire bi démarré waat ba examen di jub si waat te duñu ko fay mhm. donc ñoom tamit seen àq ak seen yelleef nañu ci les autorités compétentes mhm. dimbali parce que conséquence bi dafay répercuté wu ci suñu njaboot. tey da gis xale boo xam ne dina jàng CI CP un 1 ba C2 ko ne comment tu t'appelles dina réfléchir tuuti balaa mu laa tontu. Mm-hmm. c'est une manière de parler. Mm-hmm. c'est-à-dire que ni am na sax ñoo xam ne seen biir classe làkkuñu français. Mm-hmm. te tamit boo jël sa njaboot yóbbu leen école française pour ñu jàngi. c'est pour que ñu mun a jàng kàllaamay tubaab. ça c'est déjà le minimum mais da gis xale bu jàngi dem ba c wala ba cm te du mën a làkk benn phrase français bu jub. Mhm. moo j'ai été euh, euh, comment on dit témoin de ça mooy def terminale benn élève en classe de terminale ñëw na ne dame bi euh, madame kii je veux un feuille. Mhm. <laughs> dame bi dafa tiit ne ko pardon mu ne kii feuille laa wax mu ne ko non waxaatal li nga waxoon. mu paniqué xamul lu mu wax mu ne ko pour ton bien je te souhaite de ne pas avoir le bac. Mhm. mais xoolal loolu ku dem ba a passer l'examen du baccalauréat nga xam ne c'est l'antichambre Mm-hmm. dem ay eh, université ci njàngale mu kawe mi ngay wax un feuille ah, en fait loolu c'est c'est un exemple te bëri na fi du jeex du mm-hmm. xaaj université da nga fay fekk des étudiants ñun suñu département bu ñu jaar anglais di nuyu monsieur Kandji au passage mm-hmm. da nga fay fekk un étudiant qui est en département d'anglais déggul anglais nga fekk fa ku nekk FLS nekk faculté des lettres déggul français bu jub donc foofu y a un bas qui blesse quelque part et je pense que il est bien qu'on aille revoir là où forme les enseignants. Mhm. là où on forme les formateurs. ñuy former enseignants yi ñu xool fan la affaire bi euh, war a war a rectifier woo daal. Mhm. parce que dañuy faral di wax ni tegale bool ba ca suuf bu mhm. jubul. li ci des yëpp dañuy dëng. kon nag nañu xool tabernacle bi fan la. taajukaay bi fan la. ñu jéem a régler foofu noonu parce que après ki jàng mooy faj. ki jàng mooy jàngale ki jàng mooy nekk journaliste mooy toog ci télé yi di wax. ki jàng moom mooy tukki dem représenté dëkkam. ki hmm. jàng moom moo mën a def lu bëri. donc ki jàng war nañ koo tàggat jox ko lépp lu mu soxla. ci hmm. ëllëg bu waree taxaw ne dama ne ñëpp déglu ko xam ne hmm. c'est le Sénégal qui s'exprime mais cette image là qu'on rend du Sénégalais il est il est vraiment déplorable. et et c'est, et c'est vraiment dommage quand même. parce que am nañ fi ay euh, kàngam yu mag ñu mel ni Cheikh Anta Diop ak i ñoom. li ñu fi bàyyi ci héritage donc ça mérite pas vraiment. à ce que ñu traité que de la sorte. voilà euh, c'est très important ci intervention yi ngeen ci indi. Mhm. Euh, ñi ngi interpeller toutes les autorités yi nga xamante ni compétente en la matière ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. xam ni réew bu doxee. Mhm. Euh, njàng moo koy doxal. Mhm. Euh, ginnaaw jàng jikko. surtout parce que ñaari yi mooy tax réew mën a émerger. mooy tax réew mën a dox. parce que njàng mi mooy tax. réew mi boo ko yore nga yore ko ci xam-xam mm-hmm. njub gi mooy tax bu ñu la nattalee budget jox la ko jox la alalu askan wi doo nga def ko fa nga ko war a def mm. nga xam ni di ko def yërëm sa askan mm-hmm. loolu c'est très important ñu mm. war ko bàyyi xel bu baax a baax ndax nag askan wi sonn nañ de trop mhm. sonn nañ de. mbir mi fépp lay méttee nag. waaw foo laal rek li naan màgg euh, feebaru màggat la. foo laal ci yaram bi rek. mu onk. Mhm. Euh, foofu la ñuy jaaree nag euh, waxtaanee li nga xam ni mooy suñu troisième et dernier point ci thème bi lañuy ñuy dugg muy la vie Sénégal. le pouvoir d'achat des ménages au Sénégal en question. Mhm. Oustaz nga baal ma. Mhm. Euh, fàttali nañu résumé de du mois d'octobre mooy octobre rose bi mhm. donc c'est juste un euh, rappel. da nga ciy joxe rek information. dañuy joxe information rek la semaine prochaine dañ leen di jox rendez-vous. Euh, on va inviter un spécialiste dans le domaine mu ñëw toogandoog ñun on va essayer aussi d'avoir ci activiste féminine yi. a ñëw toog ñu cancer du col de l'utérus. du cancer du sein nga xam ne mu ngi rey la population féminine bu baax sax cancer du du sein googu du sein ak du col de l'utérus ay cancer yu sonal jigéen ñi la gis naa gis naa leeral TV <laughs> publié ci benn benn vidéo ba reetaan lu mm-hmm. euh, xaw ma mami Cobra la xaw ma mm. mu ne daa dégg ñu ne xaw ma euh, <laughs> mu ne ñu bal ñu ci kàddu gi mm. waaye bu fekkee ni mu ne jigéen boo xam ne day joxe ay weenam mm-hmm. ñu di ko ñu di ko ñu di ko nam day tax du am cancer xam naa ni moom ba yaboo. waaw cancérologue bii ñëw on verra. <laughs> bii ñëw xam naa ni question boobu moom dama koo daas fanaanal rek di ko xaar. waaw waaw on verra incha allah. mais di jox rendez-vous waa Régis ñoom joxe nañ ñoom verdict ba pare <laughs> seen verdict xam naa ko waaye du ma ko wax. donc <laughs> dañuy jox rendez-vous téléspectateurs yi. waaw rendez-vous téléspectateurs yi vendredi prochain incha allah vendredi euh, question boobu moom Régis. ba yaboo mm. ngeen noppal seen bopp rek man xam naa jarul ngeen ma sa réponse xam naa ndax daaw de xam naa saako boo fa jaar de. saako déggoo ma naan dëgg la. dëgg la. waaye papa non on verra ça vendredi waaye bi ñëwee. Mhm. loolu yëpp dina leer. incha allah. ayca professeur. Mhm. Euh, wax nañu ne ah réew mi fi mu toll nii dund gi cher na de. Mhm. waaye beneen bi itam mooy. da nga yor njëg. waaye njëg ba. boo ci daan am ceebu jën ceebu lébu. ah. léegi ceebu Saalum lay am. waaw léegi ceebu Saalum. Saalum Saalum ma tooñ Saalum Saalum xam nga Saalum Saalum yi. Euh, xam naa saan bu ceeb bi doyut. Mhm. dañ koy def bu mu tàng jër. Mhm. nga xam ne booy dugal sa loxo bi. lekk lekk day yàgg. ndeysaan mhm. ndeysaan nga xam ne lu mu tuuti tuuti. ñam bi day doy. day tooñ de. ma nuyu sama mbokk Saalum Saalum yi. sama yaay Saalum Saalum la ñu. Ah, waaw ah. waaw des bu defee ñam bu tàng rek ma ne ko yaay. tey jikko saalum saalum lay ñëw def nga jikkoy saalum saalum ma ne <laughs> ko maa xàllaa seen lekk du doy léegi ba <laughs> ko fukki nit bu bool bu ndaw <laughs> waaw a jeex ay saalum saalum lañ de kon defe naa ah kon réew mi ñëpp léegi dana war kii hmm, daal léegi léegi moom teraanga bañ doon wax sax léegi booy kii bu ñuy añ léegi dañuy tëj bunt bi booy woote ci mbedd da nga moo li daanu na bu ko defee gars yi daal di jub ah code la code la léegi ah. ok léegi mais on est obligé léegi léegi ñi woo bi. ah bu ñuy wootee dañu naan Mawli daanu na. Mawli Mawli daanu na Babacar Diouf Daouda Diouf. Eh, ABS jóg Amina daal di rocceeku ñu daal di daje ci digg kii ba. léegi sax taajatuñ ci digg ëtt bi de. waaw ci biir néeg ba lañ ko nekk ngeen ma ko defalee nii. waaw kay ñu jógee ma gis nii. <laughs> jamonoy Salim Tola ba jamonoy neex. lii lii moom franchement gëj na am moom. Sénégal ba jamonoy neex. ceeb mi di moom léegi ah. waaw ndugg gi macha allah. Mm. loo yóbbu marché boo ñëwee am sa ceebu jën bu baax. am ceebu lébu. Ah. nangu leen rek ndax lébu yi. ndax ceeb nag loolu moom Sénégal moom yàlla def na ko. baal nañ mm-hmm. professeur lan moo waral tey euh, réew mi tey dund gi cher. Mm-hmm. te réew mi euh, on a presque tout am na ñu ndox. ak na mm-hmm. nañu naaj am na ñu ndaw. am nañu espace. war nañu mën a dund dund ku ñoom. waaw c'est-à-dire la première question mooy est-ce que su ñun la. Uh-huh. parce que. à mm-hmm. qui euh, jii bu ñu dee débattre sur le plan économique. Uh-huh. ñu si bëri dañuy jël faute bi rattaché ko directement à l'État. Uh-huh. bien vrai que état du rëcc. Mm-hmm. parce que dañ leen jox ay moyen gis nga président buy génn. Mm-hmm. diggante fii ak Thiès man su ma koy def quarante cinq minutes. moom mën na ko def si quinze minutes. parce que dañoo jàpp ni. li mu yor ci noddam dafa bari mm-hmm. te amul droit taxaw ci ay embouteillage parce que dañ kaa yónni yàkkamti ko mm-hmm. ministre bi aussi la même chose mm-hmm. dañoo jàpp ni bokkul ak Babacar bi nga xamante ni mbokk njabootam rek lay dawal. Mhm. mu am na dix huit millions de sénégalais yoo xamante ni. Mhm. dalee na war a doxal seen ay soxla. Mhm. moo tax fonction yooyu bu ñu la ko dénkee da ngaa war a tiit. to ngay jouiru. moo tax boo gisee problème bi fu mu gën a njëkkee fu mu njëkkee nekk. si passation de service yi. parce que bu ñu la président fête dañ koy def. foofu problème bi fa la njëkkee. parce que dañoo dem ba fàtte mission bi leen sas. Mhm. parce que un président c'est un employé de son peuple. dañ kaa yónni di ko fay à la fin de chaque année. Mhm. parce que président nekkoon nii dañ koy fay eh, par weer. dañ koy mhm. daggal budget. ba pare nekkoon nag li ñu la tënk tënkal nii nii nattal soxlawuñ ci dara. duñ la laaj foo koy dugal ak. duñ la laaj noo koy defee. bu la neexoon nga woo Daouda mii jox ko cinquante millions amul benn sénégalais bu am sañ-sañ ne président la moo tax nga may ki cinquante millions. parce que jàpp nañu ni président bi amul jot tax pour joxe ay compte rendu. parce que askan bi la fi nekkal ñoom la fi nekkal. ñabootam aussi ñu ne pour président mën am am quiétude. Mhm. nañu encadrer ñabootam ñu wutal leen ay garde dugal leen si ay écoles yu baax pour mu mën a am quiétude pour mën a sukkandiku si kiwu askan bi. Mhm. moo tax ñu mun ñoo rëcc. Mhm. mais nag bu ñu demee si la plan économique économie du Sénégal kese. Mhm. économie dafa fasan fasantikoo. mooy su le plan national la. sur le plan international. ñoom nag fu ñu leen di empoigner mooy politique la ñuy teg moo baaxul. moo tax situation bi am parce que artu lu am am solo la. xam nga yow ustaas nga. Mm-hmm. xam nga ni yàlla waxoon ni bu leen njaaloo. Mm-hmm. dafa ne bu leen ko jege. Mm-hmm. loolu mooy artu. donc réew boo ko yoree da ngay artu lu ñëwagul. loolu ñu tuddee anticipation. léegi na boo amul xam-xamu anticipation. lañ tuddee yàqale xam nga yàqale. mooy temps ba ñu nekkee étudiant waaw da ngay dem ba si biir oto bi taxaw nee la xam yàqalee la fii mhm. nga yëg ci oto bi mu yóbbu la léeg-léeg nga yëg ñu paas la waat la ñaari yoon boo demee nag ba amoo xam boobu mhm. da ngaa war a yàqale lañ la joxoon mhm. keneen beneen chauffeur bu gën a expérimenté yóbbu nit ñi à bon port léegi nag nga gis ni Sénégal monde bi dafa am ñaari crise yu bees yoo xamante ni ñoo ko xaw a sukkawee bu si njëkk mooy covid 19 bi xam nga ñu si bëri dañuy wax covid 19 mais Covid bi nan la agir dans l'économie mm-hmm. mooy d'abord la production la njëkk a mm-hmm. parce que dañoo wax leste rester chez vous mm-hmm. ce fameux rester chez dafa am benn impact néfaste bu mu def dans le jeu économique mooy nit ñi bu ñu demul pour la production bon production du am pas, mais demande bi. Mmh. ça ne cesse de grimper. Mhm. donc demande buy yokk production bi wàññeeku. Mhm. déséquilibre day juddu. Mhm. déséquilibre bu juddoon nag. day agir directement su les prix. mooy première crise bi. deuxième crise bi am ñaar ñoo xamante dañoo frontalier. xarañ trop trop trop si wàllu production ci ñun lu ñuy soxla dans le monde. ci côté Afrique. côté céréales. comme ñun amuñu fayda. dañuy consommer kase. ci côté Europe. comme ñum dépassé nañu ci wàllu énergie. muy ñaari volet yoo xamante ñaari réew yooyu dañ ci am pàcc bu am am solo mooy Russie ak Ukraine. Mhm. xeex nag mënoo kaa def bëgg def production. mënta nekk. donc ñoom ba ñuy xeex taluñu woon produire. Mm. parce que lu ñu gën a tal mooy comment survivre. seen production baissé carrément. Mm. la production énergétique dafa baissé mm. la production en termes de céréales dafa baissé wu. Mm-hmm. bii mu touché carrément Afrique bii touché Europe. Mm-hmm. mais Afrique lu tax mu gën a metti mooy li touché Europe da koy touché waale. donc Afrique day recevoir ñaari coup. deux fois l'emploi. ñaari coup lay recevoir. su boobaa aussi day agiraat. sur l'équilibre du marché. Europe lu day am day mu denc. su boobaa dafa agi sur les deux équilibres. mooy l'offre et la demande. te déséquilibre bu amee si ñaar yooyu rek dañ koy sentir ci panier de ménagères. maintenant si wàllu énergie. Mm-hmm. xam nga énergie dafa am nu muy agir si yu bëree bëri. Mm-hmm. parce que sans énergie mun ñu am production. te bu énergie amee production bu amul hmm. réponse efficace à certaines demandes du mën a nekk hmm. donc yooyu mooy indi parfois déséquilibre yooyu ñuy sentir ba ñëw mu ñëw dal suñu kaw nag lu tax mu dal suñu kaw foofu nag la ñuy imputer ñii seen responsabilité yi hmm. parce que ñun dañoo am économie de marché économie de marché mooy boo xamante ni offre ak demande moo koy réguler économie boo xamante ni tënkuwul si daal lu du offre ak demande parce que dans les autres pays ñoom dafa benn vision bu ñu am vision boobu mooy xaalis dafa war a mën a développer réew. Mhm. mais boo ñëwee suñu genre économie yi ñoom mhm. vision bu ñu am mooy xaalis dafa war a neutre mooy amul benn effet. Mhm. de développement bu muy am ci économie. mooy une vision néoclassique de la monnaie. ñoom nag vision boobu la am moo tax bés yaaw dama leen faral di tooñ naa leen yéen nekke woo leen fi lu sol ay costume yu rafet ay séminaire mais amu leen benn impact. dans le jeu économique. parce que ñoom jàpp nañu rek. xaalis moom nan la war a mooy. Euh, moyen d'échange mm moyen de transaction mm -hmm. unité de compte réserve de valeur mooy ñetti fonction de la monnaie yooyu rek la war a am mhm. ñoom seen politique ñu accès ko ci benn mbir mhm. mooy la lutte contre l'augmentation des prix ce mhm. qu'on appelle l'inflation lu toll ni banque centrale di réguler une politique monétaire amoo dara lu dul benn rôle nga am mooy lutter contre l'inflation ah. xam nga kon recul rek foofu lay mën a yem inflation mooy lan inflation nag bu ñu ko doon définir. ñu bëy dañuy naan c'est la hausse généralisée des prix. mais damaa jàpp ni loolu définition classique la. mais inflation définition bu gën. mooy la nga mënoon ci 1000 francs mënatoo ko ca. loolu mooy inflation loolu am na solo dañ fàttewaat ko bu ñu nekkoon ci daayira ma def nii de. <laughs> ñu bëri ñu bëri dañuy ah, wax ni seen hausse généralisée. kon lu ko ma def la même hausse généralisée boobu sax <laughs> maanaam man sax explication xam nga man dama fee toogal. Mhm. sama mbokk góor góorgóorlu yi. Mhm. sama ñoom yaay ñi nga xam ni ñoom comprendre luñ. Mhm. terme technique yi. waaw maanaam mooy ni damaa yoroon ñaar téeméer. daan ci dugg. daan ci daan ci daan ci ndugg reer mhm. xale yi reer bu suur mhm. dinaa dese weccit bu ma jëndee ndékki fajar mhm. waay léegi mille francs yooyu matatul reer matatul reer loolu mooy inflation su fekkee bëgg nañ am définition bu correcte parce que ñu bay dañ naa hausse généralisée des prix mais même inflation c'est pas une hausse généralisée des prix de parce que nekkul prix yëpp yokk. mais c' est une définition classique bu ñëpp di jël. mais li ñu mën a jàpp daal mooy c' est une détérioration du pouvoir d' achat des ménages. Mhm. suñu comprendre inflation. moo tax damay faral di tooñ tam ministre yi naan leen yéen pourquoi ngeen di wax ci PIB. mooy dañuy wax ni ñoom année bi Sénégal am na PIB bu toll nii. année bi Sénégal am na PIB mais mooy le débat du si PIB bi. le débat c' est pouvoir d' achat. mais c' takk na jabar. Mhm. am na cinq ans. Mhm. bu takkaatoo keneen. c'est mhm. parce que pouvoir d'achat bi baaxul. dafa baaxul waaw ah. balaa ngaa takk ñaareel mu am vingt ans. madame ans ngay soog a takk. waaw <laughs> bu réew mi neexee kay cinq ans nga doon. léegi loolu la ñu war ah, a comparer waaw. da ngay ragal kay mu ñaanal tamit nag au niveau de la région nag yaa saako. li ñu li ñu li comparer mooy la am na ta mënoon ci at bi at at bi ñu toll nii nii. nan la demee. su boobaa lañ leen soog wax ndax yéen liggéey ngeen wala liggéeyoo leen. mais du ko agir rek sur ce qu'on appelle le euh, le PIB. mais paybe jigéen bu xeesal la. Mm-hmm. nekkul parti yëpp xees. waaw jigéen bu xeesal la. PIB du leen lu jigéen bu xeesal. mooy wanewul dëgg. Mm-hmm. PIB wanewul dëgg. parce que terminologie bu ñu ci agir te PIB boo xool c'est juste. une richesse bu ñu créer ci biir réew. mais ñan ñoo ko créer ñan ko créer mooy ñoo xamante ñoo ngi ci biir réew mi. Mm-hmm. ngay joolaa. Mm-hmm. ngay chinois. Mm-hmm. ngay japonais. ñëpp la ñu jël lu ñu créer yëpp ñu boole ko tuddee ko PIB. mais ça ne définit pas le pays ça la réalité du pays parce que dañuy ñëw fendre résidence xam nga kàcc chic la mm. mais am na ñoo xamante ne duñu añ mais pays bi xam nga muy wax mm. yii fii la vie et extrêmement excellente mais Almadies rek xoolal Almadies parce que pays bi noonu lay raisonner en fait ne prend pas en considération certaines réalités de l'économie si loolu nag la ñuy agir pour mesurer li ñu tuddee la croissance xam na dañuy la croissance Sénégal toll na si huit points jóge nañu ci quatre points dem nañu ci huit points ñu góor glorifier ko uh-huh. mais na ñu dem ci pays dictatorial yi ñi nga xamante dictature moo fa am uh-huh. seen pays bi dafay dem ba si nekk si ñaari chiffres mooy PIB bu baax day dem ba nekk ñaari chiffre mais PIB boobu bu ko defee dictateur bi jël ko ay mbokkam ak xaritam uh-huh. population lu ñuy dundee uh-huh. moo tax may leen bàyyi leen du communiquer sur le PIB le PIB est un indicateur excessivement limité uh-huh. mooy dafa néew lool lool lool du wax dëgg PIB tout nañu moo tax ñu dem ba ci biir ne nañu bàyyi PIB bi tax mais nañu def IDH mooy indice de développement humain. mooy ñu xool nii ni nit ki nan la mën a yokk te yokk yokk nit ki et cetera. Mhm. même IDH boobu ça ne pas réellement la la vie de l'individu. mais boo xoolee dëkk bu mel par exemple Rwanda. Mhm. ils ne sont pas sous une euh, sous un on va dire gouvernement despote. Mhm. mais ils sont à dix neuf virgule quatre pour le Rwanda et pourtant ils ne sont pas un pays sous une dictature. c'est une démocratie mais bien dirigée c'est c'est une orientée mais mhm. man li ma gën a amoon solo mooy mhm. inflation bi da nga si wax sànq mhm. euh, démb rek ñu ngi ciy def live nit yi di ci insister parce que prix kii euh, chiffre yi flambé yu chiffre bi dafa tiital nit yi te ñun sama genre bi nga xam ne defuñu économie xamuñu impact euh, inflation bu nekkoon 4 wala 5 pour cent yéeg ba 9 pour cent ñuy wax 11 pour cent en Europe ñu ngi préconiser peut-être en 2024 mën na am une baisse considérable de c'est-à-dire que fi ñu toog duñ fi bouger waat pourcentage boobu noonu di yéeg ak a ban impact lay am ci ci ñun suñu dundin en tant que ay ménage xam nga d'abord fu muy njëkkee mooy inflation hmm. le mot est tellement rendu péjoratif alors que c'est pas péjoratif nit ñi xamul hmm. maanaam yokk lu jaadu la cim réew c'est pas péjoratif de hmm. gis nga baignoire xam ngeen ko baignoire xam nga dañ nga dugg di sangu léegi ma jox leen définition simple de l'économie économie jàppee leen ko baignoire mais baignoire lu ñu ci war a def ndox nest pas ndox moom lañ tuddee la mone bu ëppee lu muy def loolu mooy inflation d'accord bu njëkk bi mhm. bu ndawee lu muy def doo su mën a sangu xam nga mm. lu ñu tuddee la récession kon ñaari mbir yooyu ñoo am mm-hmm. c'est-à-dire que baignoire rek la dañuy xool ndox mi nan lañ ko équilibré kon mm-hmm. waru ëpp waaye itam war tey yees mm-hmm. léegi nag boo nekkee ci communauté d'abord monétaire dafa am tënk loo xamante ni mënoo kaa dépassé mooy comme ñun suñu zone bi ne nañ inflation war a dépassé trois pour cent waaye loolu la ñu wax mais tey ji pourquoi inflation bi di dépassé gab bi te mënuñu ci dara moo tax ma ne inflation dañ kaa rendre un nombre assez un terme assez péjoratif. Mhm. Mhm. mais c' est pas péjoratif. Mhm. da ngay dem euh, Nigéria. seen inflation day dem passé ba ay vingt cinq pour cent. ça parce que gis nga réew boo ko yoree da ngay mën a agir. xam nga nooy agiree. mooy su fekkee ni man am na luy daal sama kaw. foog ma protéger wu. léegi nag inflation bokk na si li la mën a permettre nga mën a protéger wu. mooy bu ñu demee ba sentir ni dëkk bi ñëpp yor xaalis. Aminata yow yor nga. Mhm. da yor nga. man yor naa. amiin n'est-ce pas. Ah, su boobaa bu ñu soxlaa ordinateur bi ka moo koy jël. ñun ñun ah ki ci gën a mën a fay rek. ok ah, xam nga ko gën a gën a mën a fay. Mhm. gën a mën a fay moo jël ordinateur bi. Mhm. te loolu équilibre dootu amati si réew. moo tax inflation day agir su boobaa. pour récupérer xaalis bi. banque centrale day naan. xaaral ma yokk sama taux directeur. Mhm. ce qu'on appelle un taux de refinancement. Mhm. bu yokkee taux de refinancement bi. Mhm. comme moom day jaay xaalis banque commerciale yi. banque commerciale yokk seen taux de prêt yi. bu ko defee Aminata day naan yii xaaral ma daw nëbbatu gaaw. doot ma dépensé ti xaalis. parce que taux bi fu mu toll marché bi neexatul. daw la def la même chose bu ko defee équilibre amaat sur le marché. tega foofu sa baaraam. message nga baaraam li wax ni dafa am a dañuy wax xaalis amul dund bi jafe na nangam sangam on est d'accord mais ñan ñoo koy yëg secteur informel bi lu si ëpp. tey jii nii da ngay damay joxe exemple rek par exemple ma dem Mbour wala ma dem Géejawaay ba ma dem Pikine wala Rufisque dans les banlieues. Mhm. ña fa nekk ñoom ñu gën a yëg yokk gi. Mhm. mais ñi nga xamante ne nii ils ont un train de vie assez euh, aisé duñu sax yëg ni. ceeb yokk na wala mburu yokk na ça c'est une chose mhm. deuxième bi mooy man dama remarqué que ni taux de violence bi su dund bi chéré day yokk mhm. parce que frustration lay créer ah, ci euh, population bi mhm. da gis benn yaay par exemple moom mu ngay yore këram war a nourrir par exemple onze âmes wala douze âmes mu ngay dem marché day jënd jën jaayaat daal di am lu mu denc ci poche bi war ko mën a def yónnee dépense kër ga léeg di nga xëy dem ba midi doo am sax loo def ci sa cin. Mhm. mais ñooñu bu ñu yoree njaboot bu góor particulièrement mu gis loolu daf koy nakari loolooy waral léegi taux de vol bi dafa yëpp mhm. taux d'agression bi dafa yëpp parce que nit bu waree jot bakkanam faw mu jéem a seet nu mu def ba jot ko. Mhm. dañuy wax que ni ndaw ñi nanguwuñ liggéey nangam ak sàngam c'est vrai y a une paresse qui s'installe du côté des jeunes mais tamit su fekkee ne yow à la base li oustaz wax sànq saako bu deful du mën taxaw. tey jii nii ñun ñi ndaw ñi. bu ñu amul liggéey bëgg ko booleeg ñàkk lu ñu lekk. faaw ñu dem rocce di ko feneen ah. te le pire c'est que pendant ce temps que nous on galère pour avoir ne serait-ce que deux repas décents dans la journée te léegi benn lay mujjee doon am na ñi nga xamante ne ni en parallèle ils roulent dans des bolides ils ils roulent dans des dans des bolides qui coûtent cinquante millions millions te ci contribuable lay jug nañ ko wax te ah ah de de de part et d'autres yaa ngi gis koo xamante ne nii dafay toog di may xaalis di ko pasar pasare toog mi toog mais toog non toog muy dox sax bañuñu ko quand tu es entrepreneur. mais su toog muy dox boobu de <laughs> ah, <laughs> ah xam nga ñun. toog balaa moo toog daa daj lañ moo tax hmm. toog muy dox. dañ koy balaa toog daa daj lu ne. voilà bokk la ki nga xam ne daa taaba taaba daanoo ko jóg nekk ci naaj gi daj lu nekk ba dem ba yàlla may ko. Hmm. lu mu mu toog di xëy di toog muy dox. Ah. am ñeneen ñu ko nekkal ci naaj wi. gannaaw ba mu jiitoo ca naaj ba waaw. waaw mooy kaala bu jugee jiitu si ndigg bi dem si bopp bi ba point is man sama problème mooy Sénégal dañuy wax amul xaalis mhm. mais da ngay ëlbatiku nga gis le contraire mhm. ce contraste là sur le plan social ça ça ça a impact les mhm. sur les êtres humains impacté ba ci xale yi maa ngi koy wax sànq daaw da ci suuf bu ñu toogee mooy gone gi nga xam ne nekk na ci kër gi nga daan xëy jox ko deux cents pour mu dem école dana lekk ba pare doogaat dem mbaa bu demee mu jënd si ndékki mhm. xale bi tey dootoo ko mënati sax jox cent franc mhm. dafay dem mu gis yeneen moroomam yi euh, kii am na ndékki bu mat kii am na ndékki bu mu amul moom daanaka sax léeg-léeg day ñëw avec les mains parce que buñ àggee le vin bu laajee yaayam mu ne ko franchement dara neew fi demal rek ba ci kanam dinaa am koo mhm. yónni xale boobu noonu ñu ngi koy traumatiser sans pour autant le savoir kooku dana màgg avec un déséquilibre day dem ba mu yàgg mais lu luy waral may jàng Évidemment. Parce que chaque jour, il y a une liste à l'université des jeunes qui ont le bac, qui ont le master, qui ont la licence, mais qui, ont son, qui sont sans métier. Mm D'accord Maintenant, l'impact bobu non, lu djara baye xel mhm. Et moi, ce qui me blesse le plus encore, moi, ce contraste-là. Mm -hmm. Sur le plan économique, il a un contraste bobu, naka ngeen ko mëna expliquer. Euh, xam nga lima faral di wax économie, ce sont des théories. Mm. yu ñu dajale moo tax bu ñuy jàngal xale économie li ñeen njëkk a jàngal ce sont les différents courants de pensée économique mm-hmm. am na benn année ma joxoon sama étudiants yi benn examen boo xamante ni ku weddi trouver ku dëggal trouver vrai ou faux waaw ku weddi trouver mm-hmm. mais ku dëggal aussi trouver waaw mm-hmm. mais léegi argumentation lay jarul argumentation parce que économie noonu la dafa am ñoo xamante ni dañ ciy xalaat ñu tuddee les mercantilistes. Mhm. ñoom dañoo jàppoon ni commerce mooy doxal économie mooy doxal réew. Mhm. mu am ñoo xamante les physiocrates ñoom ñu jàpp ni suuf mooy doxal réew mu am les classiques ñoom ñu nekkoon loolu lépp nañ ko fi teg mais nañu fexe ba nit ñi libre. Mhm. def lu leen neex. di dugg fu leen neex. kenn bañ leen a téye. kenn bañ leen tënk si lenn. Mhm. mais dina am loxo boo xam ne kenn du ko gis nag. Mhm. mooy ñëw équilibrer le marché. Mhm. keneen jugee fee ne ko la nga wax d'accord matière. état foog mu intervenir dans le jeu économique. donc ñu dem ba si biir ñaar ñooñu ñoo émerger moo ngi mel ni Baba Ndiaye. ak waa Akhlou Brick. Akhlou Brick noonu la. Ah, gis nga seen duel bii nii. Mm-hmm. dafa yàgg am dans le jeu économique. ñii dañuy wax lii. Mm-hmm. kii jël ko teggi ko. Mm-hmm. donc raisonnement yi ñuy def dans le plan économique yëpp ci ñaari courant yooyu la tegu. le courant classique et le courant keynésien. Sénégal nag nu muy fonctionner actuellement c' est un courant keynésien lay fonctionner mooy état dafa war a dugal loxoom dans le jeu économique. les contrastes boobu nag foofu la amee solo pour comprendre ko. mooy yaa ngi sentir ñii amuñu frustration juddu na mais ña am moomuñu la ñu moom lañu am ah, mooy dañoo wax ni comporte comme si économie réew li mu war a def yëpp mooy fexe ba am optimum optimum mooy le juste milieu tout mooy digg doom bi mhm. mooy na nga fexe ba séddale bi mhm. tolloo loo ñu tuddee répartition équitable des ressources. Mhm. mooy tey ji bu ñu fexee ba Sénégal li lañ ci créé si richesse. Mhm. nu ñu fexe ba répartition boobu am. Mhm. mooy croissance de huit. répartition boobu nag moo am moo indi contraste bi. mais contraste du ko gën a approfondir sa xam nga lan la. peut un sociologue dina la gën a expliquer. mooy tey dafa am ay succès faux. xaw ma succès foo na ngeen ko mën a comprendre. waaw ah, succès foo yi mooy mooy ñoddi ñoo xamante ni. ils n'ont pas su prendre les escaliers. booy seeti Amina dem abbu Babacar. ok noonu la ñuy faral dem. waaw sol sax léegi. costume <laughs> si dañuy loué costume loué téléphone. allahu oto non sérieusement. Ah dama lay wax lu nekk ci société mhm. bi. da ngay gis par exemple su soxna yi da ngay bëgg a dem xew. Mhm. nga loué téléphone benn iPhone 15 Pro Max. Euh, loué oto benn 4x4 loué yére ba ngay sol. c'est que nag suñu technique yi ngay nekk. doo non non mais parce que pourquoi. Mhm. li muy wax nii ci lay. Euh, ñoo ko waxee léegi succès les succès faux. Mhm. en fait c'est ça en fait. ok ñoo koy woowee faking and fronting. mooy dañuy wane lu nekkul si ñoom juste parce que. danga naan fa ma jëm samay naw la ñoo ko. léegi sac nag kooku dugal. non non sac mooy nga yam ca la nga am. yàlla ñu nattoo sax. non non gis nga nag kay ma wax la Daouda. réew mi professeur mm. excusez-moi de vous interrompre. <laughs> Daouda dafa am loo xamante ne ni àdduna def la nga mën. wax la nga mën baatadee. yow ñaata yoon la la sa yaay wala sa umpaañ sa bàjjen naan la booy dem ci say mbokk sagalal sa bopp. mais xam nga booy sagal sa bopp da ngay mm. làmb ci li nga yor. Mm. man bu ma bëggee sagal sama bopp peut-être nag éducation ñoo bokkul mais man sama yaay ci li ma yaree. mooy que ni booy sagal sa bopp. Mm. ndugeel marché la nga am. booy dem tey ci say nawle doo sol yére bu tilim doo sol yére bu froissé. mais da nga sol lu set ma jaaree fii sol fëgg jaay romb la nga naan mu ngi nii yére fëgg jaay azim sol naa sax fëgg ko leeral. ah waa kon baax dama lay wax rek pour nga xam. ci li mu wax noonu. Mm. dafa am solo pour ñu leeral ko parce que mm. doomu aadama yi léegi. conceptu nawle ak bëgg wane toj naa fa def naa lii ndax gis nga ma fi ma génn nawle daa fort mais nawle xam nga fan la bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw uh-huh. professeur baa ma laaj non non allez xam nga nawle lan la uh-huh. mooy tey jii nii mag Babacar ñoo bokk deret wala ñoo bokk askan baa ñoo bokk fa ñu jugee uh-huh. tey jii nii Babacar gis naa ci moom jikko yu baax yoo xamee man mii des qualités euh, bëgg naa ko incarner ci sama bopp Babacar ni mu def ba baax il a eu les mêmes euh, ressources que man donc Babacar nu mu def ba baax war naa ko def ba baax. non la ça doit aller dans un sens positif. concurrence loyale hein? concurrence loyale mais ça ah, nga gis Babacar mu am mm. jikko bu baax. nga gis Babacar muy dundee dundin bu sell. Mm-hmm. nga ne dama koy toppandoo ndax sama nawle la. succès faux. oui léegi xam nga yooyu mooy indi parfois déséquilibre bi am société bi. Mm-hmm. mais avant ñu revenir succès boobu ma la doon expliquer. Mm-hmm. li ngeen wax sànq. ci nga tuddee ko. Euh, sargal pas sargal amul ah, sagu kii tuddee ko nawle je pense mhm. xam nga économie indi na ko sax mhm. Mhm. parce que yow imam sëy yi am yëpp imam moo koy takk imam góor la nest pas boo demee église sëy ba fay am ko koy takk lan la prêtre góor la tamit mais dafa am benn sëy bu am ci kaw suuf bu am am solo boo xam jigéen na ko takk boo xam te xutba bi jigéen na ko def mooy dafa am ñaari mbindeef yu bëggante mhm. kii nii ñu tuddee ko bëgg-bëgg mhm. bëgg-bëgg kii ñu tuddee ko am-am mais fa ñu jugee bokkul kii askan ba mu jugee mooy bëgg-bëgg ñoom xamuñu lu yam mhm. moom moom dañuy konne di bëgg rek ñoom sans exception mooy ñu tuddee des besoins illimités illimité tout mooy da ngay bëgg jënd oto jënd kër jënd jënd jënd damaa bëgg damaa bëgg damaa bëgg yu dul jeex mais am-am dafa yem. Mm-hmm. dafa limité wu. Mm-hmm. xam nga kon ñaar ñu bokkul jikko war nañoo sëy mm-hmm. te imam buy xutba ay conseil lay joxe. dafa am kenn koo xamante ni muy imam bi muy jigéen boobu. ñu tuddee ko économie. dafa ne yéen ñaar foog ngeen ànd. parce que ressource ak besoin ñoo war a ànd ñoom ñaar. mais lu tax ñu mën a nekk dañuy doo def li ñu rep ce qu'on appelle une rationalisation des dépenses. mooy na fexe ba def farata. ci li ngeen yor def leen ci farata. Mhm. kon économie kon réglé na problème bi. Mhm. moo tax succès yooyu moo doon wax que ni am na yoo xamante ni c'est faux waaw mhm. xam nga succès yooyu moo c'est faux mooy day da gis xan xale boo xamante ni te yàlla wax na ko sax que ni mbir yi xëyu xëy rek sotti n'est-ce pas tey day neex ba jaaxal la suba mu nakari mais dangay gis xëy suba rek suñu presse bi tegal la benn xale boo xamante ni nee na dafa sotti matul deux ans matu un an matu trois ans. Mhm. ay continue lay def. Mhm. ñu mettre ko devant la fas comme un modèle de jeunesse réussi xale bi toog amul accès ci information nu mu kii fan la jaar. su boobaa manque de confiance judd na. Mhm. ci jeunesse bi. parce que il se dit kii sama moroom la te parfois sax man maa ko mag. muy dawal oto bi. mu am lii man mënuma kaa am. l'influence. ñoom aussi ñoo ni invité sur des plateaux. ñuy wax seen jaar-jaar yu matul at. xaw ma nag comprendre ngeen. cest mhm. jaar-jaar bu matul at loolu du jaar-jaar. Mhm. pour wax nit ki man damaa réussir damaa ñafe sama àdduna bu mën a signer tel contrat mën a signer tel contrat. ko avec une telle loolu nag di agir dans la société. Mhm. beneen bi aussi mooy ñu delluwaat un su sur le plan économique. suñu gouvernants yi. xam nga euh, maa ngi koy wax démb waa TFM nee leen. pourquoi mun ñoo fexe ba réussir. Mmh. mooy suñu gouvernement pour ñoom jeunesse dafa am politique. politique de la jeunesse. Mmh. depuis Senghor. politique de la jeunesse Abdoulaye Abdou Diouf. Mmh. politique de la jeunesse Abdoulaye Wade yoonu xëyu ndaw ñi Macky Sall la. xam nga dafa jël quatre cent milliards. en deux mille vingt et un ne jagleel naa ko ndaw ñi parce que dégg naa seen ay problème mu nekkoon si quatre cent milliards yooyu. dañ koy def un projet programme boo xamante xëyu ndaw yi sur deux ans. pour ñu régler le problème de l' nañu fexe ba créer soixante cinq mille emplois. mais li mu fàtte mooy chaque année trois cent mille jeunes ñoo ngi sur le marché du travail. bu ñu ko dajalee ci ñaari at ñaata jeunes la du six cent mille jeune mm. quatre cent milliards divisé par soixante cinq mille emplois ça donnera six millions cent cinquante trois mille et poussière mhm. donc emploi bu nekk dikkee nañu six millions et quelques mhm. par ratio mhm. deux ans gouvernement bi naa créé que dix virgule vingt cinq pour cent d' emploi c'est très dommage si quatre cent milliards parce que gouvernement waru am pour créer emploi gouvernement lu mu am mooy fexe ba assainir le milieu des affaires l'environnement des affaires c'est le secteur privé qui oui. et puis secteur privé mu nekk secteur privé national ah. ñu fexe ba orienté ko vers des secteur porteurs. Ah imaginez la population active soixante dix pour cent yëpp ñoo ngi ci agriculture bi. alors que agriculture bi lu muy participer dans le jeu économique bëriwul bu matee quinze pour cent si lay yem. Mhm. naka noonu. Mhm. nga jël dix million de sénégalais. lu ñu tuddee la population active. Mhm. mooy ñi nga xamante ni xarañte bi nekk na fi. doole bi nekk na fi. pare nañu pour wuti liggéey. ñooñu ñu ne état ñi mu ci jël. comme privé bi ñu mu ci jël. mille kese la. mu des 9 millions 600 yoo xamante ni économie taaba taaba la ñuy def. wallaahi mooy bu ñu xëyee. pour joxe dépense. Mhm. dañu naan may ma ba 10 heures. wallaahi pour mën a joxe dépense. ñu ngi koy wax sànq le secteur informel. oui vous voyez un peu. Mhm. donc ñooñu. nga war a wax ak ñoom defoo ko. Mhm. nga marginaliser leen. tuddee leen secteur informel. jàpp ne duñu fay impôt mhm. di leen tuutal mhm. mu ñooñ est-ce xam ñaata la ñuy représenté dans le poids économique quatre-vingt-dix-sept pour cent des unités économiques c'est Sénégal boo amee cent entreprises ñi gën a xeebal waaw mais gis nga professeur mhm. nga baal ma foofu ñii ne duñu fay impôt te nekk ci secteur informel bi man bëgg naa xam juuti fan la jëm ak lan moo ko sooke parce que fi nga wax noonu la ci sama xel dem dañ leen marginaliser tuddee ñu ñun ci laa bokk parce que damay lijjanti tey lijjanti suba secteur informel bi on ne paye pas les impôts aux impôts et domaines ça mhm. on est d'accord mais juuti bi ñuy daggloo nit ñi toog ci marché bi mhm. par semaine am ñoo xam ne par trois jours par quatre jours juuti boobu lan moo ko sooke ak fan la jëm waaw Euh, juuti boobu directement ci collectivité territoriale yi la jëm mooy mairie yi parce que xam nga dafa am lu ñu tuddee état central mhm. état central dafa am ay démembrement mhm. lu si mel ni collectivité territoriale yi mhm. ñoom ay démembrement état central la état ci kaw lu muy jël mooy les impôts n'est-ce pas dans son ensemble mais juuti boobu affaire bi vie chère bi leen touché ba ils sont en grève euh, pratiquement depuis deux semaines depuis deux semaines et quelques ah. oui parce que ci état civil dara doxul mënuñu li jënd kayit. dara mhm. daal parce que ñoom booy xool lu tax tax ñu mën a dugg en grève. Mhm. mooy euh, mairie yi collectivités territoriales yi avec la décentralisation mairie bi mu war a am ses propres ressources pour fay ses employés. am na léegi nag su fekkee ni yow zone bi nga nekk activité économique bu bariwul. say ressources du bari. tout à même activité économique bi su baree te nangu ñoo fay juuti yi mhm. wala juuti yi organiser wuñu comme ni mu war a def ce qu'on appelle euh, perception bu ci war a def defuñu ko ci mhm. wala ñu koy am fu ñu koy dënk mhm. di am lu ñuy kepp di joxe lii yooyu mooy indi parfois déficit budgétaire yi am te su boobaa mën a am ay dépenses de fonctionnement te bu ñu amul dépense de fonctionnement rek day xaw a narmel un la masse salariale mais nag kon kon kii taaba taaba min secteur nit ñu marginalisé war nañ ko xoola parce que bu ñuy mhm. fay juuti mhm. ça veut dire ko ñu ngi fay suñuy impôt mhm. à notre manière donc ça veut dire que on doit plus prendre en compte ki nga xamante ne nii mu ngi ci marché bi au même titre ki nekk si bureau bi parce que kële dañ koo daggal këyit muy far par muy fay par année kii dañ koy daggal këyit muy fay de manière journalière wala hebdomadaire mu koy bëccëg am na ñu koy bëccëg am na ñu koy fay par semaine te xaalis boobu mu ngi jëm ci loxo nguur parce que mairie la moom mooy jokkalante ak ña muy jokkalante ba mu dem ba ci état donc mm-hmm. tey je pense que il est que ñu mën a reconsidérer waat mm-hmm. cette manière de voir le mm-hmm. secteur informel parce que vous l'avez dit tout à on représente presque 97 pour cent vraiment temps qu'on reconsidère cette partie du peuple là parce que frustration yi ma mhm. doon wax sànq foofu lay jugee évidemment évidemment xam nga euh, secteur informel boo xoolee xam wax naa ne 97 mhm. mais si wàllu emploi est-ce xam nga day polariser des emplois boo si génnee agriculture 60 pour si emploi si li ñu créé ci richesse ci réew mi la ciy participer. Mm. secteur informel bi rek. Mm. kon kooku est-ce que war nga ko tuddee informel. pas du tout moo tax ma ne dañ kaa marginaliser. tuddee ko informel beddi ko mm-hmm. alors que dans les pays occidentaux ñoom lu tax ñu utiliser le terme informel. Mm-hmm. lépp formel. Mm-hmm. bu lépp formel. bu amee des exceptions on peut appeler ça informel. mais fii su fekkee ni majorité bi dafa informel. est-ce que waruñu wut beneen tur. Ah. buñ leen tuddee pour mën leen récupérer man damaa waxoon que ni secteur boobu est-ce que duñ ko tuddee économie parallèle mhm. wala une économie domestique mhm. bu ko defee nañ ci mën a tirer davantage profit mhm. naka lañ ciy tirer davantage suñu homme politique yi lu ñuy wax dañuy formaliser le secteur informel mais cas ba li tuddee cas xam nga cas <laughs> wala charme bi nekk ci économie informelle bi mooy l'informel loolu moo ci def cas bi buñ ko fa jëlee rek chambre bi dootu amati. léegi euh, foofu ñu ngi may signaler ne ma waxtu bi li ñu dese bareetul. Mhm. parce que professeur euh, ñun instant bi ci cours magistral la ñu nekk. macha allah quand le premier serait là. Mhm. Euh, pas question dañuy toog <laughs> parce que aussi tamit euh, sénégalais yi ñu ngi toog di déglu franchement parce que mhm. tellement que li ngay wax. am na mhm. am na solo. macha que li ma ci gën a neex moo tax boobu ba léegi maa ngi la bàyyi ngay kii. mooy c'est-à-dire explication yu plausible ngay joxe. c'est-à-dire des explications claires nettes et précises. waaw. macha allah maanaam ni nga ko rabatlee dafa am lu ñuy tuddee si euh, nu la pédagogie. Mm-hmm. Mm-hmm. am lu ñuy tuddee aussi la luminopédagogie. Mm-hmm. luminopédagogie. Euh, on sous-entend la lumière dans la pédagogie donc la luminopédagogie. c'est-à-dire lumière plus pédagogie. plus pédagogie waaw loolu mooy <laughs> je parle sous le a de. d'un pédagogue aussi ah. waaw xam nga ñun moom pratiquement. waaw ah, nga xam ni foofu rek euh, solution yi. yi nga xamante ni mooy cette vie Euh, que vivent vraiment euh, nombre de Sénégalais. Mm-hmm. Euh, vraiment métti na métti na métti na. am na ñoo xamante ni yaa ngi leen ni gis guddi bu jotee. Mm-hmm. nous qui habitons donc dans la banlieue. vraiment. xam nañu comment mm-hmm. ça se passe xam nañ naka la méttee. je comprends xam nga bu delloo si solution yi dafa am ñaari mbir yu économie indi. une politique conjoncturelle. une politique structurelle. conjoncture mooy lu taaba taaba. mooy loo xamante dañ koy régler daar daar daar daar mhm. si lu gàtt lañ ko war a régler mhm. structurel mooy loo xamante ni dañ koy teg pour mu jëm lu xaw a yàgg mhm. léegi na Sénégal gi nga problème yëpp lu ko indi mooy problème yu daar daar ñu bëgg a régler des solutions yu gudd à long terme du dox xam nga léegi nag sur le plan conjoncturel lan la ñu war a mën a def bu ci njëkk mooy train de vie de l'État loolu moo ci njëkk hmm? suñu bañee fenante loolu la ñuy bañee léegi bi waaw suñu bañee fenante Ah, ah mooy ñu réduire. le train de vie de l'État Sénégal gii ministre Sénégal gii ah. nga nekk biir Sénégal gii. doo doo mën a daw non non waxuma la fay balaa fay essence gi di ñëw. non doo fay essence ñu mën jëndal oto buy jar soixante dix millions nga di ko dawal. on te dit voilà euh, dañuy bàyyi xel ci sécurité alors que pratiquement euh, non mais suñu ci bari dem ñu benn ñuy Dakar. c'est n'importe quoi donc. politique conjoncturelle bu njëkk bi loolu la. Mm. mooy le train de vie de l'État. Mm-hmm. ñu fexe ba wàññi ko. Mm-hmm. beneen bi mooy bu ñu ko wàññee lañ ca wàññee nañ ko subventionné. ci denrées yi mais rationaliser euh, les dépenses de l'État mais ba tey defuñu ci dara. <laughs> mais ba léegi non non ils n'ont pas état mm-hmm. subvention rek la mën a def. ci population parce que tey jii yu bëri nii ñu ngi koy jënd. bu dëgg neexee jaru njëgam. Mhm. état da si dugal loxoom. Mhm. fay benn mois ci nga fay benn mois ñu tuddee ko des subventions étatiques. parce que économie noonu lay doxee. Mhm. mais subvention bi doyul. parce que su fekkee ne war nga dugal dix milliards fenn nga ne bon naa fa dugal benn un milliard. neuf milliards naa ko def fonds politique. du dox. Ah. donc loolu mooy li nga xamante ne solution solutions conjoncturelles daar daar war nañ ko mën a def mhm. les politiques structurelles yi nga xam war nañ ko def mooy ñu changer suñu structure réew mhm. gis nga dëkk pour mu dox foog la secteur info foog le secteur euh, privé national moom ko mooy ñu fexe ba doole suñu secteur privé national. Mm -hmm. mais ñu pousser nos investisseurs à investir dans les secteurs porteurs. Mm -hmm. comme l'élevage. Mm -hmm. l'agriculture mm-hmm. et la pêche. Mm-hmm. bu ñu fa jugee lañ fa defar noonu. Mm-hmm. ñu jox ko la secteur secondaire. ñu créer des petites industries ou bien des industriels. ñu créer chaîne de valeur. mooy gerte gi bu ñu ci paree def ko huile def ko dara bu presse mën nañu ko def céréale. industrie yi travail xale yu toog ci réew mi liggéey fi. beneen bi mooy ñu Euh, sous-traitance ñu ne entreprise bu ci nekk fexeel ba liggéey lu mu néew néew cinq PME sénégalais. Mhm. te cinq PME yooyu ñoom itam ñu fexee ba recruter lu mu néew néew cinq jeunes. Mhm. gis nga loolu bu ñu ko defee. Mhm. gëm naa ni deux à trois ans le problème de l'emploi dina commencer di wàññeeku bu baax a baax a baax ñu redéfinir aussi l'emploi au Sénégal. parce que c'est important ñu def nii parce que am loo xamante ni ay métiers précaires lañu. Mhm. Mhm. mooy mënalu dara da yàggul. Mhm. les BTP aussi mën nañu solder carrément cette gamme de l'emploi aussi. professeur li ah. ñuy waxtaanee moom thème la boo xamante ni euh, c'est tellement vaste. du jeex. waaw waaw ñu ngi ñu ngi lay jaajëfal. dëgg yàlla ci teewaay bi. ak ci disponibilité bi. Euh, vraiment li ñu attentes yi ñu amoon yépp ci thème bi. Euh, vraiment vous étiez à la hauteur. allah euh, donc loolu tamit euh, dañ la ci sant bu baax a baax. waaye tamit euh, di la mm-hmm. ndokkeel itam. ñu ngi mm-hmm. soog am occasion bi. Mm-hmm. ci livre bi nga xam ni bindoon nga ko ci suñu maam jooju Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. loolu tamit ci encouragé. bu baax a baax di xaar aussi tamit l'apparition d'autres ouvrages <laughs> ci ci wàll woowu. Amina ñu bàyyi la nga nga nga nga tàggatoo. waaw ba na kon xam naa ne kàddu di gudd mm-hmm. di sant yàlla rek di leen jaajëfal ci toogaay bi mm-hmm. di la remercier bu baax ci exposé bi am na solo mm-hmm. euh, solo bi ëpp na je pense même que buñ fi toogaatoon yeneen cinq focus duñu mës a pare ci li ñu mën a wax mais je pense que li si am solo mooy maanaam defal nañu cours magistral defal nañu TD exactement <laughs> mais les man ce qui ah. m'intéresse le plus <laughs> mooy focus ñëpp a koy seetaan uh-huh. nu fexe ba mu dugg ci nopp ñi mu war a àgg c'est-à-dire que ni dem nga dem démb ñëw nga fii tey suba nga dem feneen ce cette tournée là ne doit pas être vaine c'est-à-dire que xam-xam bi bu ñëwee génn constat ngeen def préconiser ngeen ay solution mais na ko sa kii euh, autorité compétente yi mm-hmm. jël mettre ko à l'épreuve parce que sonn nañu mhm. sénégalais yi sonn nañu très sincèrement sonn nañu trop nañ ñu dimbali nag mhm. parce que dañ leen a wóolu mhm. dénk leen suñu réew mi li kii di wax naan sénégalais dañ leen jox jànk ñu delloo ñu màgget kon nag dafa dellu dafa dafa jaadu <laughs> ñu daal di delluwaat ci ci ci cette sénégalais d'antan là qu'on a qu'on est habitué à euh, di la remercier Daouda di remercier sama yaay moom mooy message daa ma nuyoo ma tay de dama laa fàtte <laughs> di nuyu sama bàjjan di nuyu képp ku ñuy seetaan di leen dig daje vendredi incha allah sur le plateau de Focus avec le thème euh, Octobre Rose le les femmes et leur cancer. waa Régie. les femmes et cancer xam naa nag bis dinañ ñëw ci endométriose man boobu moom a gën a ñor. Ah, mais nag dinañ ñëw ci les femmes et les cancers. vendredi prochain incha allah xam euh, ñi nga xam te ni ñi ngi ñuy envoyé message. Mhm. di ñu wax ni ñi ngi topp émission bi ku mel ni euh, mon frère. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye mhm. euh, l'homme de Sokone mhm. mi bàyyi xel émission bi ku Moustapha Mbaye aussi c'est mon grand frère mhm. ak euh, Cheikh Tidiane moom ci kër gi la bokk sunu cadreur technicien boobu waaye aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy mes amis noctambules là mes amis du soir <laughs> waa Proxaan Café donc on fait les émissions avant l'émission là-bas waaw aussi chez Café fa la ñuy <laughs> waxtaanee nag tout ce qui est Euh, les problématiques euh, du pays parce que c'est entre jeunes mhm. ñu fay daje di waxtaan mhm. mais li tax euh, ma leen di tudd à travers cette émission mhm. c'est des jeunes yoo xam ni dafa jafe ngay toog ay jeunes yoo xam ni c'est-à-dire ils parlent di discuter sur sur les yi nga xamante ni moom moo gangrène la société ça se voit que ni y a une jeunesse consciente waa Proxaan Café laa leen tuddee ñu nuyu leen ziar leen waaye aussi may nuyu tamit une très chère. Uh-huh. koo xamante ni euh, Zeynab Lo la tudd. Uh-huh. Nabouja depuis parcelle unité 3. moom tamit euh, di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy émission focus. Uh-huh. Euh, ñu ngi koy lancer un coucou di ko jaajëfal. ci topp bi nga xam ne mi ngi koy topp émission bi kon Zeynab Lo. Nabouja donc dédicace baa ngi noonu ah. kon professeur kontaan nañu bu baax a baax. kon nañu jàppalewaat Sénégalais yi état bi encore une fois. ah ñun ay ndaw lañ te tamit bëgg nañu uh-huh. dund ci réew mi uh-huh. tekkee ci réew mi uh-huh. dundee ci réew mi am fi ay soxna ay am fi ay soxna <laughs> baax na professeur daal moo joxe leçon bi nee na réew mu réew bu neexee boo dawalee cinq ans war nga takkaat baax na d'accord ok euh, kon ñi jaajëfal ñëpp di leen jox dig daje ba vendredi incha allah ci beneen numéro focus. Mm. di nuyu ñi nekk ci régie bi daaw da Djiba. Mm. mon Touma sa mon homonyme. Mm. ak Aline Badara Sakho euh, mon mi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah.